jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak tiraanga ak poche def dara ni ñu koy baaxu ci defe fajaru samedi mooy ànd ak yéen ci rixlatun ila daaril axira yaa ayyuhallazina amanu taqullaaha xaqa tuqaati yaa ayyuhallazina amanu taqu rabbakum lazi xalaqakum min nafsin waaxida yaa ayyuhallazina amanu taqullaaha wa qulu qawlan sadida ñett yóbbalu ngu noonu yoo xam ne borom bi subhaanahu wa nu ko baaxe bëgg nu ko ci rixla nga xam ne moom la ñuy def te mooy tukki ila daaril axira te léeg-léeg nga dégg rek ndeysaan ñu tàgge nit ndeke fa la jëm waaw ñu tàgge nit rek ndeke fa la jëm nga ànd ca mbooloo ma ngeen yóbbu ko ba ci barab ngeen gas am pax fab kooka def ca pax ma ñibbi ci waaw soo saa soo gisee loolu am rek yëgal ne kooka bokk na ca ña dem bu demee xaar fa ñu ñëwagut ñuy xaarante ba tabarkalla ngoog suñu tomb tey mi ngi jëm ci sifatu ahlil janna fi xalqihim wa tuulihim waaw wa xuluqihim tey sunu bind daa jëm ci waa aljanna nu ñuy mel waa aljanna nu ñuy toll te ñaan borom bi yàlla nañ bokk ci ña fay dem waaw nun ñii di wax a yéen ñuy déglu yàlla nañ bokk ci ñu fay dem waaye te lépp lu ñu dégg ñun dafay tax a dem rek ñu ne ca Abu Hurayrata benn saxaaba la bu ñun ñëpp ay wax yàlla na ko yàlla fayal xeet bi radiyallahu taala anhu mu indil nu addis yi mu ne yonente ba nee na xalaqa allahu azza wa jal aadama ala suratihi tuuluhu sittuuna siraan fa lamma xalaqahu qaala ishab fa sallim ala ulaika nafar wa hum nafarun min almalaika juluus fastami maa yu maa yuxayuunaka fa innaha taxiyatuka wa taxiyatu durriyat fa zahaba fa qaala assalaamu aleykum fa qaalu assalaamu aleyka wa rahmatullah waaw qaala fa zaaduhu wa rahmatullah mbokk yi hadis bi abu hurairata moo ko nettali yàlla bind aadama ca nam ko bindee mu njool lool mu njool lool waaw njool lool ndax noonoo ko neex bu ko neexoon bind ko mu ndaama lool ndax noonoo ko neex te kenn du ko laaj lu tax nga def lii waaw kenn du ko laaj lu tax nga def lii adama njool lool garab goom àgg du jar muy jël aw yet mbaa muy sàkk mbaa muy balaxa da yóotu rek wat waaw ni yàlla binde njamal a gis ngeen ko waaw nee na ba mu ko bindee ba noppi ne ko demal nuy ji malaaka yee malaaka yee toog demal nga nuyu leen boo leen nuyoo na leen déglu nu ñu nu ñu la nuyoo nga jàngal ko sa njaboot gi sa njaboot gi di ko nuyoonte ba ca sa sët ya ak sëtaat ya bu yomal xiyam ah mu ñëw nuyu leen ñu ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullah maanaam ba mu leen nuyoo assalaamu aleykum dañ ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullah wala assalaamu aleyka wa rahmatullah ñu daal jël nuyoo boobu moo tax nuyoo boobu ni ma ko waxe woon ci waxtaani dimaas min kunuusi sunna mooy nuyoo la bopp mu jóge sori na ku koy nuyoonteel am nga cër asalaamualeykum ak wa aleykum salaam ku koy nuyoontee am nga cër ndax gis ngeen fi mu jóge kera ba aadama juddoo la ne malaaka ya asalaamualeykum malaaka yi da ko asalaamualeykum wa rahmatullah dolil ko ca wa rahmatullah moo tax képp kuy dugg aljanna na aadama tolloon ci njoolaay noonu ngay toll ah waaw <laughs> na aadama tolloon ci njoolaay noonu ngay tollu waaw kenn du fa nekk di mën a xas ndaama kenn du fa nekk di mën a xas njool ndax ñéppay njoole isaan waaw ñéppay njoole waaw ndax njoolaay léeg-léeg mu sa mu saf nit waaye léeg-léeg tabarkàlla am na ci pénc mi nit ñu gàtt am na ci réew yi réew yu gàtt ay nit waaye yomal xiyam ku dugg aljanna njool fa kullu man yadxulu aljanna ala surati aadam tuuluhu situna ziraa falam ya falam yazal alxalq yanqusu baadu xata al an nit ña njoolee woon noona di wàññi ko bañ toll nii ñu toll waaw ba toll nii ñu toll hadis boobu axrajahul Buxaari Buxaari génn na ko ca jukkib ña fukk ak benn ba ca xatum 62 27 waaw kon nit ñi ndekete dañ doon dañ doon wàññi di gàtt ba toll nii waaye sutoon nañ fi waaye nit ñi sutoon nañ fi xam naa du ma tudd turam waaye am na si benn ujaaj boo xam ne bu ñu demee màkk fu ko chinois yi seen photo ak moom <laughs> waaw du ma wax turam nag waaye fu ko chinois yi seen rek photo ak moom ñëw ba jege ko rek photo waaw seet ndax ndax daf leen sut <laughs> ba noppi ëpp leen waaw kon naa ngi ci rixlatun ila daaril axira ngi ci ni nit ñi di mel bu ëllëgee bu ñu duggee aljanna njool tabaarkàlla Muaas ibnu Jabal mu ne yonent ba moo ne yadxulu ahlul jannati l janna jurudan murada ka annahum makxuluun abnaau salaasi wa salaasin cëy aw kama xaala waaw rawaawu imaam ahmad Muaas nee na yonent ba nee na waa aljanna dañuy dugg aljanna waaw jigéen ña nekk ay jànq góor ña nekk ay waxambaane rafet ba mel ni tabarkàlla waaw nee na toll ci trente trois ans eh, waaw mu ne fanweeri at ak ñett ca la nit ñuy toll trente trois ans waaw ca lay toll trente trois ans yi xool bu nit tollee ci fanweeri at ak ñett doole ji muy am doole ji xel miy am bët yi du naqari yooyu yëpp la am ci ñoom loolu moom tax trente-trois ans yi am ci solo ndax gone munta noos am màggat munta noos waxambaane wala jànq bu toll ci trente-trois ans ñoo ñoo mën a noos te yàlla daf ñu bëgg lug noos waaw mu ngoog léegi nag ñëwoon na ci bind yi weesu ne mbooloo mi njëkk a dugg aljanna dañuy dugg aljanna ala suuratil xamari laylatul badr bu bu weer amee fukki fan ak juróom wala fukki guddeeg juróom noonu muy leere ñi njëkk a dugg aljanna leer gu mel noonu lañuy mel ñi njëkk a dugg rafet lool kaar kaar leer lool mu ngoog ña cay tege ala dawi ashaddi kawkab fi samaai idaa ña cay tege bidiw bi gën a leer ci bidiw yi noonu la seen see noonu la ñuy mel waaye nag seeni jikko xuluqihim seeni jikko yàlla wax na ci alxuraan ca suutul xijri aaya e, quarante sept suma jumut lu borom bi wax wa nazaana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaqabilin wa nazaana dañuy nocci dañuy nocci maa lépp loo xam ne fii sudurihim nekkoon na ci seeni dënn min xillin ci mbañanteeku soxor waaw tabarkàlla euh, sunu magum daara sunu sëriñ sëriñ maam moo moorum cheikh mouhamadul muxtada waaw <laughs> nee na dem ba yom xiyaam ñu door laa defal wa nasaana ma fi sudurihim dara jëru ko waaw dara ko muy téere yu am solo yooyu muy bind silsila boobu tabarkàlla mi war a waraxil janna ci la ko bind waaw yàlla na ko yàlla yokk wér te sàmm ko wax na dëgg tax suñu borom daa wax fi lu am solo ndax dafa am ci nit ñi ñu am feebar bu tudd xill mara benn maladie xill la tudd xill xill bu nekkee ci nit mooy kum gis bañ la téeméer yoo dajal du ci bëgg ñett loolu mooy xel day bañ jigéen ñi day bañ góor ñi day bañ sëriñ si bañ politiciens yi il am na nit ñoo xam ne nu la leen yàlla bindee buñ amee sens nag ba dem àllaaxira nar a dugg aljanna sunu borom day wax ñu yóbbu leen benn benn benn hôpital boo xam ne bii ca la ñuy dindee feebar ba tudd xel ixwaanan ñu door a mën a nekk ay mbokk moo tax koo gis ci àdduna munta juboo ki bokkam dafa am maladie bii tudd xill koo gis ci adduna munta juboo ki bokkam wolof nee na ku xulóog ñëpp léegi nga sikk waaw kon xill mooy ne ci nit muy feebaru bañ ñépp waaw bañ ñëpp bul bañ ñëpp bu la ñëpp bañoo nit bul bañ ñëpp lu tax dañuy bañ nga dem yoomal xiyaam dem hôpital <laughs> dem yoomal xiyaam dem hôpital te bisu bisu yu foofa dafa mën a yàgg waaw docteur yi dugal la laboratoire lu ñuy def dañ lay opéré dañoo bëgg génn cëw euh, mara malaaji bi tudd xel allahu akbar lii loolu kon ndekete aljanna ñëpp mën nañoo nekk ixwaanun ay bokk du ñu bañante du ñu siisante du ñu xulo du ñu xeex ala sururin mutaqabilin ne ci ay lal te jàkkaarloo waaw nekk ci ay tëdd ci ay lal te jàkkaarloo mu mel ni salon salon marocain wala salon mauritanien yooyu nga xam ne ñi ko doon xalaat dañ ko xalaat ci wàllu aljanna ak neexin wa bu dee salon oh, européen wala tubaab nag moom seen salaw yi neexut ndax boo toogee ba sonn doo mën a tëdd te boo tëddee ñu defe ne eh, seer nga wala càlle nga jógee <laughs> waaye bu dee salaw yi moom da ngeen toog ba mu neex da nga tëdd ala surir mutaqabilin waaw yàlla xam lu neex te man lu neex tabarkal ndax daf noo xam waaw kon sunu borom bi ngi wax fii xol yi dana dëppoo kanam yi dana dëppoo waaye la koy def mooy dañoo dindi ci ñoom xel nan góorgóorlu ñu dind ko suñu bopp fii tabarkàlla yàlla nañ dugg aljanna waay mu ngoog mu ñëw ci beneen tomb professeur mooy waa aljanna danañ ziyaarente danañ waxtaan seen diggante waaw dem ba aljanna nu gaa yi toog di waxtaan waaw waaye suñ rajo ba ndeysaan Sud FM waaw ka nekkoon directeur ba Baye Omar ko nekkoon diwa nekkoon nangam ñuy waxtaan waaw waxtaanee adduna moom la ak sunu borom da xam fa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluun moom la borom bi wax nee na gaa yi dañoo jàkkaarloo ca aljanna yatasaaluuna ña ngay laajante ña ngay laajante maanaam ña ngay wax na nga def maa fi kañ ngeen ñëw ku ngeen àndal mbaa guddeewu leen mbaa sonu leen ci yoon wi ndeysaan waaw waa di waxtaan ndeysaan kañ ngeen ñëw ñu naa ñun de ci ci diw lan lan dugg waaw <laughs> ñu àndoon ca ca ca kaaru laayeen ya ñu ne kaar yëpp mooy kaaru laayeen waaw allahu akbar kaar ya ñooy kaaru almuridiya kaar bee ñee ñoo tudd atijaniya ndeysaan an naqsabandi yi ñoo nekk nële alqaadiri yi ñoo nekk nële ah ndeysaan ibaadu yi ñoo nekk ne <laughs> cettt mbokk yi yatasaaluun suñu borom nag nekk luñ ci biir waxtaan woowu lu am solo qaala qaayun minhum inni kaana li qarin bi affaire bi neexee am ku ne man di amoon naa xarit boo xam ne yaqulu daf ma daan wax ci àdduna a innaka la min al musaddiqin ndax yow gëm nga ma ne ko gëm lan mu ne a isa kunna a isa mitna wa kunna turaban wa idaman inna la la madinun ne sama xarit la ma daan wax ndax gëm nga ma ne ko gëm lan mu ne ndax bu ñu deexee nekk suuf yax yu funux ndax daañ ñu dekkalaat nee na lii la ma sama xarit bi daan wax adduna daal fu ñu toogee rek mun naan ma est-ce gëm nga dekki di ma ko wax rek qaala hal antum muttaliun am ku ne ko ndax mën ngeen séentu jóg leen taxaw yéen ñi di waxtaan ngeen séentu fa talaa mu daal di séentu ba séentu rek faraahu fi sawaaxil jahim mu séen ko ca digg sawaraw jahim ñu ne ko waajaa nga nële allahu akbar mbokk yi mbooloo ñoo doon waxtaan ci aljanna ba agsi ci am ku ne moom dafa amoon xaritam bu ko daan wax est-ce que gëm nga dekki loolu la ko xarit daan wax maanaam kii naan ko est gëm nga dekki moom gëmul dekki nee na rek ñu ne ko waaw yurndu leen wala séentu leen nee mu séentu rek faraahu fi sawaaxi jahim mu seen ko ci digg sawara xaala mu ne tallaahi in kitta la turdiin giñ naa ci yàlla alkoon naa ba pare alagoon nga ma ba pare maanaam tuuti kon waa ji convaincre ko ba lim gëmoon ci bés pénc ci dañ mu weddi ko mu ne ko tuuti nga alag ma ceetit mu ne ko walaw laa nicmatu rabbi la kuntu min al ay waay bu dugutoon ak xéwalug yàlla kon def foofu nga nekk fi laay nekk mbokk yi moo tax kuy fan wala ngay bëgg wala ngay gëm mbaa ngay topp déglu li ñaar li li mbooloo mi wax nit ku ñëw fekk la nga ne ci dara ñaari baat la lay wax rek nga topp ko mu convaincre la nga dëgër ci këng yim lay wax est yooyu moo am léeg-léeg nga départ ci dara ba am tey at jenn waay ñëw une semaine deux semaine un mois mu convaincre la jële la ci li nga gëmoon indi la ay gëm-gëm yu bees changé la déggal li waa ji wax tallaahi in kitta la turdin waaw walaw laa nicmatu rabbi la kuntu min al muxdarin waaye dem ba foofa door koo rëccu rëccoo ko fi gën ndax waa ji déggal li mu wax mbokk mi a innaka la min al musaddiqin a isa mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la majnun loolu la ko wax léegi nag bëgg koo indil ay théorie te nit ñi dañoo gëm théorie lool waaw yonent bi alayhi salaatu salaam li mu fi indi woon jàngale ko mu leer mu bàyyi ko fi dem waaw mu bàyyi ko fi dem nit ñi di ko jox joxala di ko jox joxala mu ak si jamono nga am ay maam yu baax ak mag yu baax jàngale ci lu leer la Cheikh Al Hadj waxoon mbooloo ma mooy yéen su ngeen xëyoon ma wax leen lu wuuteeg lii ma leen di wax nu ngeen di def waaw mu yéen su ngeen xëyoon ma wax leen lu wuuteeg lii ma leen di wax nu ngeen di def mag ña am ñu ne ko ah xanaa ñaanal rek si ñaanal rek ndax nga del si la ñu daan wax teñ bañ laa fekk ci lu bees li ngay wax mu jox leen loxo ne leen nun dong la na waaye mbokk yi ma ne dangay dem ba jamono rek nit ñëw nit ñëw sëq ci jaww ji jox lay xob nga ni yàq mu sëq ci suuf si jox la xaalis waaw mu gësamu daal di ñaq waaw joxoñ ay loxoom gëm loo la benn affaire loola mu lay gëm loo tax nga bëgg a weddi li nga nekkoon li nga amoon sikkim waaw li say maam nekkoon la nga daan dundi ba am sikkim nga ne ko fa ñukk dugg ci yeneen théorie yu bees waaw di théorie si yoo xam ne nag nekkut amut déedéet xëy na waa ji peut daa am fu mu xam ne mooy sa point faible mu jéem la faa jaar xëy na loolu la xam waaye loolu kenn ko mën mënal ab jullit waaw subhaanahu wa taala ak loolu janna ñu ngay waxtaan ñu ngay laajante li ñu nekk woon ci àdduna waaw waxtaan wa jural leen kenn ci ñoom li lii ma nettali mooy wax gaañi tabarkalla am na man ku ma doon waxal kooka moom xawma anamu ñu ne ko yurndul mu mu séentu sawara séen ko ci biir waaw eh, Kaab nee na baynal jannati wa naar kuwa fa ida araada al muminu an yansura ila aduwin kaana lahu fi dunia ittalaa min baadi tilka al kuwa waaw maanaam aljaana dafa am fenêtre boo xam ne boo amee koo gisul aljanna boo xoolee ca fenêtre boobu séen ko sawara waaw wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaaluun qaalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin fa manna allahu alayna wa qana adaba samum inna kunna min qablu nadcuuhu innahu huwa albarru rahim allahu akbar waaw nee na gaañu jàkkaarloo di laajante daal nañ ñun dey tiitoon nanu ak ñoo tiitoon bañ nekki àdduna inna kunna qablu fiha fi ahlina musfiqin ak noo tiitoon bi ñuy dund ku ne nu woon daan dugg aljanna nu gëm ko ñu weddi ko danoo tiitoon waaye fa manna allahu alayna yàlla may nu xéewal te mooy yónnee nu muhammad mu indi alquran nu jàng ko wa waqana adaba samum yàlla fegal nu mbugalum sawara inna kunna min qablu nad'u nad'u ñun yàgg nañ koo ñaan ndax innahu huwal barru rahim teg leen seen baaram foofu bu buñ ko dégloo benn yoon ñaar jàpp ñett incha allah indi bind bu bees ci e, rihlatun ila daaril axira jërë ngeen jëf ci ànd bi si defam seen rajo ñoo ngi jégalu soxna yi di jégalu sëriñ di ñaan jàmm ci réew réew yi ko wër ak seen ñu fa war a yëkkatee jotaay bi ndax suñu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ta firiñ fàncal ko ci waaf ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak s technicien bi ak suñu sponsor yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara kenn àndaloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha ma tatatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu